salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar euh, képp kuy dund làmb umpale woon ni ces dernières am na benn affiche boo xam te ni ñu ngi koy plébiscité mu daal di jur coow jur benn polémique partout donc à travers le Sénégal muy Boy Niang digganteem ak Balla Gaye ñi naan jaadu na jaaduwul coow lu bëri ci trop. récemment ñaari mbër yi def def def sorti ku nekk daal di sànni sa morom xeer ñu lancé ay pic biñ jugee foofu ku ci mel ni Alioune Seye numéro 2 am na lu mu wax loolu waral tey ñu daal Euh, mu nekkoon ak moom mu naan ba dara dul dara ba tey mu nekk à mu egg à un certain niveau muy Tafa Kandji grand Tafa ñu seet ko tey pour waxtaan ak moom ci affiche boobu waxtaan ak moom aussi ci làmb de manière générale grand ñu ngi lay nuyu. waa Thiandoum maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu sa caméraman bi di nuyu internet yu Guédiawaye info muy site boo xamante ni franchement bi ngeen ñëwee yàggul mais xam nga mbir boo ci ñëwee soo yokkul rek dangaa ngaa wàññi mais franchement yéen ngi def liggéey bu am solo di ay jeunes. yo xamanteni yene ngi participer timit ci développement lamb donc buñu jakarlo tay ak yene contentement lañ ci am quoi ak mbégte bu wéré wér alors ci rappel ci ci gatal rek bo mënee wax gaay kan moy grand tafa parce que yag nañ dégg sa tur mais ñu xamé wuñ la. non tafa tafa kanji ben ndongo la rek ben taalibe bu xébu bo xamanteni bon dekk Touba précisément dar Rahman juddoo fa mais yaro Dakar quoi yaro Dakar màggee fi jangé fi. voilà après nag ba tey bon ñu fi nekk di fi daan suñ doole di góor góorgóorlu quoi kooku daal mooy Tapha Kandji. Mhm. alors diggante bi ak mbër Boy ñaa 2 fan la commencé. waaw booy Boy Niang de Père xaan nag moom ma ko présenté maa ngi koy nuyoo passage Père Bourkhane Wade mooy manager bi moom ma présenté Boy Niang après par la suite euh, ci lañ commencé di déggante xam nga di déggante ba après ñu tissé ci ay lien yoo xamante ni franchement lu fort la ñu dem ba parce que làmb moo ñu boole au fait mais dañ dem ba benn certain niveau boo xamante ni après li ñu seex sax dafa dépassé cadre làmb parce que am na yu bëri yoo xamante ni ci moom mën naa ne la man dama ko ci def te am naa sañ-sañ tamit ci lépp loo mën di gis lépp loo xamante ni mën naa ñëw def ko ci moom ba pare door ko koo yëgal daal waa booy naa foofu la ma féetee. foofu laay taxaw tuuti sax ci complicité bi parce que dégg nañ ne am na ay jamono nga daat koy yoroon sa kër loolu yëpp di woon am na complicité buy dox seen diggante. waaw waaw waaw loolu waa dëgg la booy ñaa dëkk nañ ci benn toit pendant six wala sept ans su juumul yoo xamante ni même bu doon dem bi bëre ji sax suñ kër la doon gémbo ah lu garaaw waa Géejawaay maa ngi leen nuyu maa ngi leen nuyu suñ gaa yooyu mën naa ne la ren bi biñ koy def dëgg-dëgg yëpp fajaale ñu jugee de waaw booba fekk nag ñu ngi bëre ak mbëru Géejawaay yi ñu dëkk sept ans comme ni ma ko waxee mu nekk koo xamante ni tamit franchement ku neex a nekkal la quoi parce que xam nga nit xam nga li ëpp solo ci ànd mooy ànd te yàlla rek tax ay nit su fekkente ne dañuy ànd te yàlla rek tax après ànd boobu noo ci mën di gis rek bu ëllëgee faaw mu am lu mu jur quoi parce que xam nga fii koo gis rek koo yaakaar yàlla la yaakaar yàlla moo yor ñëpp des fois nag nit yàlla yow mën na jël sa dara jaare la ko ci kenn comprendre nga mais loolu étape la rek boo xamante ni yàlla mooy doxalee noonu ay mbiram donc c'est un devoir parce que dama ko gisoon mu nekk un boo xamante ni bu yaru ma xam ne kii vraiment soxla woon na ku ko jàppale après man tamit ma na vers sama grand frère koo xamante ni mooy suñu taawu kër moom tamit maa ngi koy nuyoo passage at bu kanji non non at bu kanji waaw c'est pas du kanji promoteur de noono am na keneen koo xamante ni waaw moom moom mag kanji promoteur kooku après ma waxtaan ak moom moom tamit après bon mu ne ma parce que xam nga mbokk ndey moo koy jur quoi grand bi dafa fekk booba moom parce que comme daana suivre làmb mu ne woon moom bàyyi na làmb bàyyi na làmb affaire yooyu mais comme gis na ne am naa ci booy ñaa cofeel trop trop te chaque jour ndeysaan dama doon def nii buñ toogee rek ma ñëw ma ne ko at bu pourtant sama sama booy bi soo ko jàppalee champion lay doon de waaw booba xam nga mu reetaat nii mais après mu gis ma koy wax ma après mu xam na lu ma soxal la waaw booba affaire yi melagul comme nii quoi bo après nag mu nangul ma ko mu ñëw ñu dëkk vraiment dëkkin bu rafet nag waaw waaw <laughs> paay déng boobu sax mais ñu dëkk daal xam nga bokk ndey bokk bàyyi quoi mu nekk tamit rakk ju neex a rakkoo waaw rakk ju neex a rakkoo macha allah. am na solo bu loolu weesoo grand dañuy dem ci directement dans le vif du sujet parce que am na ci loo leen jóge donc coow li bëri trop seen diggante ak la dëggee de ngeen jóge fi am ci loo leen dëgmal Balla Gaye 2 nekk seen principal cible avant lan moo waral Balla Gaye nekk le principal cible. non c'est xam nga xam làmb càndum làmb du maas dabante la quoi du dëgg Balla Gaye numéro 2 c'est un très grand champion maa ngi koy nuyu di nuyu mbëru géejawaay yëpp waaye nag mbër mu mag moo gis ci làmb ji ba làmb sosoo ba tey mbër mu ndaw a koy folli loolu moom amul ma dem te ñëw te les faits sont là yàgg na te Balla Gaye il faut mu accepter Balla Gaye numéro 2 il faut mu accepter ne. fa mu tolloon ba muy bëgg a bëreeg ñoom Baboy ak ñoom Mohamed Ndaw tey Tyson ñoom Yaxya Joob Yékini booy Niang dafa toll foofu mën naa sax wax ne li mu leble woon rek la ko booy bi di fay <laughs> waaw affaire yi loolu kese la et ñu gis ne tamit combat boo xamante ni combat bi il faut surtout waa waaye ñu def seen bopp dara quoi man su ma leeree na man man li may man la engagé quoi man tafaakaa ni su ma leeree na booy Niang day jël Balla Gaye pour xaalis bi nii rek non barki sëñ Bamba du ma dem làmb ja billaahi sama kër laay toog seetaan ko. gëmm ni Boy Niang day jël Balla Gaye pour daan ko avec la manière. mbër mu jël sa avance da laa bëgg a daan. avec la manière. laa jëluñ Balla pour nekk nii di wax xam nga gars yi di ci commencé barki sëñ Bamba dañ ko jël pour bu bis baa ci kàttanu suñ borom non ñu duma ko daan ko. mais nga wax aussi wax bu am solo muy nga ni Balla Gaye 2 fa mu jaaroon ay magam tey bor boobu la ko Boy Niang bëgg a fay. dafa jëloon ay Yaxya Diop ni ñoom Mouhamed Ndao Tyson daan leen avec la manière nga ni Boy Niang tey dafa ñëw pour jaar ak Balla Gaye foofu mais ndax loolu dina yomb un grand champion bu toll ni moom. waaw xam nga des fois damay dégg Bécaye Mbaye ñu koy nuyu moom tamit di wax benn wax bu am solo mooy pour nga yegg fenn fi il faut nga daan ñenn ñi ñenn ñooñu Balla Gaye numéro 2 ci la bokk parce que tey actuellement nii ci làmb ji ak mbëri ni ñu positionné chaque champion mënul confirmer. feeg daanoo ku mel ni Balla Gaye numéro 2 wala nga daan ku mel ni Modou Lo wala nga daan ku mel ni Eumeu Sène ñooñu boo leen daanee xam nga dañuy nangu na fi mu ne nii kaamil nga léegi nag ñun dañoo bëgg yegg fenn fii mais moo tax ñu bëgg bëri bëreeg Balla Gaye numéro pour daan ko ci kàttanu suñu borom. waaw mais ñu bëri muy observateur muy ñenn ñu dindi lamb dañu anam bi ngeen di bëree c'est-à-dire qualité Boy Niang ñoom gis ñu ni Boy Niang am na lu mën a yëngal Balla Gaye. Boy lay bëree ñoom lu ñu nan la Boy Niang di bëree. déet non gars yi lan lañu wax xam nga genre wax maanaam waa léegi ma wax la dara bu la neexee nga bank sa baaraam booy ñaa songu na mbër daan ko mm-hmm. hmm? booy ñaa bi muy daan brise de mer booy ñaa moo ko songu mm-hmm. booy ñaa bi muy daan dolf booy ñaa moo ko songu Boy Niang bi ñuy daan saaka joor ñu ngi koy nuyu au passage di gën a ñaan yàlla na yàlla gën a fëgg boppam mu del siwaat bi muy daan saaka joor moo ko song booy ñaa bëri naa mër nga ne bëreet mu daje ak yow daan la bi muy daan Sa Thiès daa daje ak booy Thiès bi muy daan Baye Mandione dafa songu Baye Mandione bi muy daan lees de lees le dafa ñëw mu daan ko donc euh, wax naa la fi yaakaar naa ñetti qualité bëre yoo xamante ni mi ngi ci boy ñaa lu mu gatt gatt ci ma la wax ni rek te damay dégg des fois mom papam di wax lu am solo Père Dégol ma ngi koy nuyu mom tamit mu ne mbër ñetti façon mbeur yi ñoo am ki nga xamanteni dang koy songu ak ki nga xamanteni da ngay ak mom ak ki nga xamanteni dang koy xaar mu ñew te ñetti anam yi mala wax ni yépp boy na daan na ci mbër. <laughs> non loolu. garaaw non champion la. non Balla yëpp la. Balla yëpp la ci macha allah moom ndaanaan la yëpp la ci. waaye ñun tamit damaa bëgg ñi ñoom ñu gëm ne. walaayal ajim ñu Balla Gaye pour xaalis rek. billaay walaay taalaay. su ma la déggee tamit gëm ngeen am loo xam te ne am ngeen lu mën a daan Balla Gaye 2. Cheikh xam nga la problème en nekk mooy géejawaay. géejawaay moom suñu fief la. parce que parce que wax jooju nekkul ñoo xam te ne dañuy supporté Balla mais yéen amateurs yi surtout sax dañu naan Boy amul loo xam te ne war na mën a daan Balla Gaye. waaw kenn ku ci nekk ak sa gis-gis la xam nga am na ci loo xamante ni su ma ci xuloo ak yow su ma ci weranteeg yow xam nga dama lay bëgg a tooñ parce xam nga nit moom àdduna gis-gis yi moom faaw mu wuute quoi comprendre nga man li ma gëm. bokkul ak càndum li mu gëm bokkut ak El Doudou li mu gëm kenn ku ci nekk da ngay waxee ak sa xam mais xam nga ñun genre déclaration yooyu dañ ko miin ci combat booy Niang yaakaar naa ne bëri na fi tey ay combat yoo xamante ni su ma la ko doon limal bi ko Boy Niang di gëm amateurs yi buñ dee cent quatre-vingt-dix yi gëmuñ na booy Niang mën na cee am ndam dernier Boy Niang bi muy bëreeg Sa Thiès rek Sa Thiès mais boo defee micro ba pare noo da nga naan Boy Niang kay kon moom amul benn chance ci combat bi te pourtant wallahi ajim yàlla xam na ne ñun ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak moom ak moom mii mbër mi amoon nañ yaqin ci nag combat boobu formalité la te mën naa la ci jox benn anecdote parce que des fois damay gis internet yi des fois waa kër Balla Gaye waa Géej waaye xam nga comme dañu xobee no Sa moo ñu tooñ dafa rek Sa dafa bëreeg Siteu Siteu daan Siteu ma jugee ci oto ma jugee stade di ñëw quoi di ñibbi si ànd ak benn copain bas waa ji xobee Balla ak Sa rek lay nooyee ñuy werante quoi man ak moom nii waa ji naan ma non Sa booy yi yow li ngay wax xam naa ci booy naa ngay jëm mais ku ci Sa Thiès jàpp ni mu def Siteu la lay def waa ji fi muy daanee booy Niang woo ma téléphone ci biir oto bi ma def booy Niang haut-parleur ñu waxtaan quoi Boy Niang laaj ma ndax man dama demoon stade ma ne ko waaw après ñu commenté ci làmb ji Boy Niang ne ma mbër est-ce que xam nga ni muy daanee gars yi dafa yomb man ma marqué temps d'arrêt waaw booy Niang wax ma noolu ma jékki-jékki na ko noo yombul mais da leen a ëpp doole ñi muy dajal da leen ëpp doole quoi booy naa ma est-ce que xam nga man damaa gaaw ci Sa Thiès bi mu daanee Siteu de ma reetaan booy naa tamit daal di reetaan ne ma peut-être li ma lay wax mënoo ko gëm mais mu ne ma billaahi bu sama combat ak tax Thiès ma daan ko ba ñibbi Pikine du xam ne daan naa ko donc Sa Thiès ni ñu ko daanee nii c'est pas quelque chose boo xamante ni Sa dafa vendangé combat wala nangam nangam. mais am na solo li nga am na solo ku xam booy ñaa xam ni tactiquement la bëree Sa Thiès mais aussi ñëpp seetlu ne ci wàllu jox jër adversaire bi fonk bis bi teg lépp ci yoon saa jour boobu daf ci daf ci xaw a négliger lu bari. déet bul fàtte ne noonu la daan bëree nag wax ma ban combat la Sa bëree bi mu commencé bëree ba léegi boo xamante ni arbitre danaan prip Sa def round d'observation ban combat amul. déet Sa Thiès wul de coup bi mu jël moo ko excité. moo avant non. non non du manqué respect c'est xam nga mbër ndeysaan mbër des fois am na foo xamante ni su fa tollee day mel ni genre comme façon ndaw xaw ma na xam nga mool xam nga mool wala fas waa dafa lekk pepp ba yëg boppam des fois mu daw waa bajant saa bi muy bëreeg booy naa vraiment état bi mu yor gis nañ ko et puis moom tamit li mu gëmoon mooy day ñëw rek xam nga faxas booy ñaa jàll loolu mooy kii mais ça non mais habitude am la parce que xam nga ci biir déclaration avant combat bi yéen ngi ko doon laaj journaliste yu bëri sax ñu ngi ko doon recadré mais chaque jour changé ci benn tempérament lay dox mooy du ma changé ni may bëree te effectivement nag ba mu duggee ci làmb ba tey mosu koo changé c'est un très grand champion moom tamit continuer rek wax ci li nga xamante ne mooy actualité bi Balla Gaye 2 parce que Sa Thiès weesu ngeen ko euh, ñu bëri li nga xamante ne mooy la problème mooy mënoo daanu ci Lac de Guiers 2 nit bëgg a tëb rek daal di song Balla Gaye 2 ñeen am ngeen benn potentiel adversaire bu taxaw ku mel ni Tapha Tine mais pourquoi ngeen bëgg ko sauter rek dem viser Balla Gaye non xam nga loolu tamit kontaan naa trop ci li nga ma ko parce que des fois tamit les gens à di di à di wax ne Tapha Tine Boy mais xam nga càndum yow doo tëgg làmb xam nga man du ma tëgg làmb promoteur yi xam nga ñoom ñooy principal bailleurs yi mais la problème en est que ñun bañuñu tafaatin mais promoteur moo ñu musul seet si nañu seen combat ak tafaatin mais xam loolu mënoo ci dara promoteur musul ñëw démarché na booy Niang yow ak tafaatin c'est que loolu mooy problème bi quoi pour gars yi ñu xamee ko noonu mais c'est pas parce que Boy Niang non dafa bañ tafaatin non tafaatin Boy Niang mënu ko bañ parce que tafaatin champion la. làmb moom lu sedd amu fi ak lu nooy. bool bool moom da koy tàngal. kuy wax waxu Balla Gaye nga may wax Tapha Tine ñun Balla Gaye la ñuy wax di nga naan ma Tapha Tine du ñeex a ñebe. xeex. Mhm. xeex moom. Ah, xeex moom xeex moom su ma bañul abusé xeex. Mm. xeex rek au vrai sens du mot. booy bi booy bi macha allah mën na ko de xam nga keroog am na Lamine seeti na ko mu wax bi bi gay Gaye ne moo ñu mën nañu jàngal tactique combat affaire yooyu. waaw xam nga booy ñaa am na lu mu ko toot na ko poowa yi ko xaadim di jàngalee xaw ma gauche droite yooyu moom bu ñu taxawee rek mu wax ko gauche gauche droite esquive xaw ma nan booy ñaa tactique combat daf ko xam nag. booy ñaa booy ñaa nag kaa wax la ci benn affaire tey xaw ma ndax xam nga ko xaw ma xamoo ko pour ñi may seetaan ñu xam ko wallaahi azim du wax lu mu gëmul xanaa xamoo loolu parce que booy ñaa daf ñu yabul ñu ñi nga xamante nii ñun ñooy ay kilifaam ci misaal di bàyyi suñu yitte yëpp di ànd ak moom booy ñaa yabuñu yab boo xamante ni da nga koy dékki micro muy wax loo xamante ni bu ngeen fayee micro yi mu dellu ci ginnaaw billaahi wallaahi lu mu la wax rek nar na ko. mais boo déggee comme Boy ñaa daal di wax sama aussi ni Balla Gaye de bëggee sax mën naa mën naa ñëw fiyee fam Amadou Bari ñu bëree fa est loolu nekkul kàddu nit ko bëgg a bëree rek. waaw loolu loolu loolu nag soo xamee booy Niang xam ne nag dawul yoole li xale yi di wax. a jéem a touché waa ji du loolu. arène nationale bi bu ñu ko tuxaloon mu nekk stade Amadou Barry mu nekk stade Amadou Barry su combat bi taxawee wala al azim ñu ñëw bëre Amadou Barry. waaw génn gi daal lay tegal lii de. géejawaay géejawaay suñu fiyeef la càndum yow tamit. géejawaay ñun kuñ fa daan dañ laa jox loxo comme ni ko Boy Niang waxee yëkkati la nga jóg ñu encouragé la ah loolu da nga ma koy nangu waaw te géejawaay ba tey ñoom amaguñ mbër boo xamante ni moo ñu jox loxo encouragé ñu amul te loolu du am comme ni ko Boy Niang moo ci nekk xanaa xamoo combat Balla Gaye Boy Niang. mu waa déggoo li ma la ne mooy gën a gaaw sax Sa booy Boy Niang. li ci garaaw mooy waa ji moom bu arbitre sifflé bokkul adversaire nga xam te tey da lay may temps dara ngay xalaat mais bëreet day ñëw dal sa kaw indi giita ngaas def li muy def. comme Sa comme ça c'est quoi. c'est différent parce bu ñu xoolee Balla moom arbitre bu sifflee ci enceinte bi combat am da ciy def benn intensité te yàgg nañ dégg mu wax doole ba ànd ak xel mais dafa mel ni tey loolu lay appliqué ci làmbam te foofu Balla bu ñu xoolee aussi Boy Niang day bëgg adversaire bam ten da koy may mu xalaat c'est un tacticien comme ni ñu faral di ko waxee. xam nga Balla looloo tax mu neex bëreel man làmb ji looloo ma ci gën neex man ndaanaan la boo xamante ni bu arbitre na prix danaan la moom amateur yi duñ fi jullee timis man loolu moo a neex quoi au fait ci combat bi wallaahi loolu moo ma ci neex moo tax après da gis làmb joo xamante ni làmb ju neex ngay gis tànn. mais bu arbitre ne prix mu naaw seen kaw mbaa waaj du afale seen mbër. non bu arbitre ne prix na naaw rek. mbaa la. non kan booy naa. non na baal la naaw rek loolu garaawul. billaay walaay taalaay bu combat bi taxawee ba arbitre. xool leen càndum pare nga waaw. billaahi ba sifle génn seen diggante. loxo mën naa dem ci gémmiñ te du ànd. le fils de De Gaulle. l'enfant chéri de Pikine. jour boobu loxo mën naa dem ci gémmiñ te du ànd ak tibb de. billaay wallaay am na solo léegi avant ñuy terminer rek grand ma brosse tuuti actualité bi mooy resement Ligue Nicolas nga xam te ne nañ ko ginnaaw combat am solo bi mu taxawal tey lan ngay wax ci situation bi ci loolu li xew-xew boobu. waaw xam nga avant ñu ngi koy masow di masow fameem parce que Ligue Nicolas moom tamit nit la koo xamante ni franchement bi mu duggee ci làmb ba tey moom tamit dafa yokk mais wàññiwul te gis nga ren lamb ji position bi mu nekk càndum xam nga gars yi soxla nañ ay grand événement Ligue Nicolas ñëw décroché Ama Baldé ak Modou teguñ ci presque une semaine mu am mu am jafe-jafe ak yoon xam nga yoon nag dafa sew te xam nga mbir bu nekkee ci affaire ci loxo yoon doo ci mën a wax lu gudd quoi mais li ngay mën mooy ñaan mën nañu ñaan am nañ droit ñaan parce que ay sénégalais lañ lig ñu ko laaj sénégalais la boo xamante ni day investir moom tamit pour le développement de la jeunesse sénégalaise donc ñi ngi ñaan vraiment yàlla na ko yàlla génne ci xat-xat yooyu mu nekk parce que làmb ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi gars yi mën nañ xuloo mais mënuñu xastante sànq maa la ko doon euh, juñu parce que waay gars yi ëppale wuñ ñu dara géejawaay de ah waaw gis nga Thierno Gueye homme fort homme de confiance bu Balla Gaye Thierno mm, bi sotti Balla Gaye nga xam ne ñoom ñaar depuis comme man ak booy naa quoi genre Thierno Gueye yaayam bi ko jur ñoo bokk fenn fu ñu dëkk Daaru Rahman ba pare wëlbatiku mm-hmm. man kiñ ma tuddee. soxnaam man sama turandoo soxnaam ak yaayi na Gueye ñoo bokk ndey ak baay xam foofu amul dara loo xamante ni xaj nañu si sport day boole mais warul taaxale mais teewul nag barki yonent bi lu ma mën ci booy ñaa door Balla Gaye mu daanu dama koy def loolu moom bu jeexee jeex na car cur cur car <laughs> mais maa ngi lay ziar nag bu baax vraiment di am contentement ak mbégte vraiment waxtaan ak yooyu tamit vraiment te gaa boo xamante ni te boo tu es trop professionnel parce que c'était pas évident ndax sa situation géographique xam nga li ma la mais vraiment tu es un professionnel boo xamante ni yaa ngi informé juste et ba pare yaa ngi def li journaliste ñu laaj éthique ak déontologie mooy tëddee njaaxaanaay loolu bon ñu ngi lay ñaanal yow tamit lépp loo séentu ci sa kanam rek yàlla nga ci gis lu kawe sa njort may nuyu sama gars nag ay ñoom Alioune Seye de ñoom euh, Boy Niang gars yooyu ay ñoom Gakou de ñoo ngi leen di ziar ñoom ñëpp waa di nuyu ñëpp quoi. yii loolu xeex bu dul jeex la mais yàlla jàmm yàgg senegal quoi. ah voilà am na solo mbokk internet yi mi ngi noonu le grand Tapha Kandji donc ñu seex moom waxtaan bu am ah, tey gis na man ak ñoom du yomb eh, mais lépp daal di eh, bi nga xam seen mbër foofu la tolloon tey ba daal def sortie wax ci ba diggante ak Balla Gaye 2 fa lañ toll xamal lu ñu tey combat bu ñu demee ba koy laaj nekkul dañ koy laaj pour bëgg ci xaas mais fu wóor lañ ko teg yaakaar naan loolu promoteur ñu koy dégg internet den ñu ngi koy dégg te ñoom den ci wax na jàngat lañ ci def den gërëm di leen sant ah, di sant aussi les fidèles internautes euh, di gërëm aussi waa di gërëm mon ami Salif aussi di gërëm aussi Sayer depuis Espagne aussi di gërëm tous les